man du ma toog seetaan dama koy wax sénégalais yi après nag lu ci xew sama yoon nekku ci après lu ci xew man sama yoon nekku ci bu ñu rendee ak lii wala ñu nangu ko sama yoon l'essentiel prévenir woon naa sénégalais yi lii lañ nar dinañ leen diaboliser nag dinañ leen traiter de tous les noms bu ñu la bëggee nangu mbir mi ci yoon yow moom buur dafa am doole lu ko neex la lay wax yaa lii daa baax yaa nii yaa laa te loolu yëpp waxu kasaw kasaw la am nañ ci nag yeneen information yu doy yoo xam ne duñ ko génneeku dañuy xaar ba toogaat foo xamante ne bii war nañ ko faa waxee foo xamante ne waxukaay la bu gën a yaatu ñu waxaat ko fa mais en tout cas ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ci taxawaay bi ñu taxaw gis nañ ne sénégalais yi yow nañ keroog bi ñu demee seen TV ñu demaatee ci yeneen télé sénégalais yi danañ gën a yow gën a xam li xew ci réew mi li liñ leen di won ci télévision yi tous du ci dëgg ay nit ñooy toog ci plateau yi ñu leen di fay di leen neexal ñuy lobil ay nit mais en réalité dara du ci dëgg c'est pas vrai ay sàcc ñoo wër lobi Sénélec ay sàcc ñii wax ne ak lii nii naa ay sàcc lañ dañoo bëgg a séddoo commission yi après israéliens yi bu ñu installé Sénégal ba pare après ci la séddoo bi nekk après ci la séddoo bi nekk israéliens yi bu ñu installé bu ñu nangoo mbir mi ci booy yi ba pare ba israéliens yi installé ci la séddoo bi di doog ñëw maa ngi lancé appel président Macky Sall nag maa ngi koy lancé appel man parti laa yor opposition laa nekk mais bu mu seetaan ñuy rey entreprise sénégalaise au détriment des étrangers président Macky Sall ñi ngi lay wax solennellement bul seetaan buñ la lobby wala ñu toj sa bopp wala ñu wëndeel la wala ñu wax la lu dul dëgg bul seetaan ñuy rendi ay sénégalais au détriment des étrangers on en a marre ci étrangers yi ci Sénégal lu fi am lépp ci li baax jël nañ ko yóbbu rey nañ suñu économie ñun nag danañ taxaw ci loolu bés bu ñu yàlla joxee Sénégal lépp lu ñuy joxeeti ci réew mi comme marché balaa ñu ko jox ab étranger day gale manu ko loolu moo am bitim réew yéen ñi nekk ci diaspora bi yéen ñi nekk France États-Unis Espagne Italie yéen ñi fa nekk ñépp xam ngeen ne ku ciy wut liggéey balaa ñu laa jox liggéey bi dañuy seet ndax waa dëkk boobu amu ko ba pare loolu la yéen ñi nekk bitim réew xam ngeen li may wax ku ciy wut liggéey réew moo mënti nekk ci Europe ci biti balaa ñu laa jox liggéey bi dañuy xool ba xam ne seen doomu réew ñoom amu amu ko ñu door la ko jox fii Sénégal rek ngay gis ñuy jëli liggéey di ko joxee étranger di wàcc seen doomu réew Sénégal dong ngay gis loolu. loolu nag ñun jeunesse bi ñoo ko war a xeex ñun jeunesse bi ñoo war a taxaw indi révolution boobu renverser la tendance arrêté ko dès à présent arrêté ko loolu mooy li nga xamante Euh, mooy li ma taxaw li li ma li ma ñor ci mbir mi nga xamante ne bi mooy défendre mooy défendre le secteur privé le secteur privé nationale ñu bëgg a ñëw ci beneen point bi très rapidement mooy wàllum littoral bi littoral bi nag il faut ñu wax ci ndaxte euh, Sénégal fi ñu toll nii coowal suuf daf fi bari coowal suuf nag yàgg na fi coowal suuf yàgg na ci réew mi te il faut ñu wax ci man sama parti mi ngi tudd MPES jëf ak njariñ action utile action utile mooy suñu parti MPES jëf ak njariñ mouvement populaire pour l'émergence du Sénégal jëf ak njariñ action utile Mamadou Sarr action utile la may la 1000 francs dem u dem dem dem dem uti machine boo mën a liggéey moo ma ko gënal parce que bu ñu defendre le secteur privé national secteur privé boobu mooy créer emploi ci réew mi il faut nga sénégalais yi xam li tax ñun ñuy wax loolu li tax ñuy defendre secteur privé national sénégalais yi entreprise sénégalaise yi bu ñu baree jël jël jeunesse bi dina bari dinañ jël jeunes yu bari ñuy liggéey te bu jeunesse yu bari liggéeyee emploi am koom-koom bi yéeg loolu dafa bokk ci suñu priorité parti nekk ci axe principal boo xamante ne bi dañ ci dañ koy défendre képp ku ko laal laal ñu waaw littoral bi nag c'est important que ñu wax ci parce que suufu Sénégal la foncier moom mooy problème mu Sénégal suufu Sénégal nag ñi ci war a wax dafa bari ñu ci bari ñu ngi ciy wax fi ñu toll nii yow warta yam rek ci littoral bi dafa war a dem ba ci biir Sénégal parce que constitution Sénégal moo wax ne bépp doomu Sénégal am nga droit à un logement waaw bépp sénégalais constitution Sénégal moo may bépp doomu Sénégal mu am droit à un logement kon warul yem rek ci littoral bi gis naa ay nit ñuy dem ci littoral bi di def show ak yooyu ce n'est pas seulement le littoral mais même dans le fin fond du Sénégal ci biir communes yi ci biir réew mi suuf sañuy dagg di ko paccoo dañ ko war a arrêté suufu Sénégal dañoo war a taxaw ñu def ci arrêt ñu analyser ko ñu auditer ko ba képp kum ci mënti doon suuf si nga yore ci dëkk bi nga dëkk commune ba nga dëkk ñu xool commune ya auditer leen suuf sa ñu saytu ko képp koo xamante ne bi am nga droit am suuf nga am suuf mais fii lan moo fi xew littoral bi wax naa ci sama live bi passé ne bés bu nu jëlee nguur gi képp ku tabax tabax bu illégal ci littoral bi dinañ ko toj ndax ci jamono jamonoy de gis ngeen toj nañ fi ay toj nañ fi ay këru jàmbur ne dafa illégal toj nañ fi këru Massaly toj nañ fi këru may Maïmouna Bousso toj nañ fi ay kër fii ci croisement Cambérène lépp dafa illégal toj nañ fi ay kër fu ne kon képp ku ku ku am suuf ci littoral littoral bi illégalement dañ koo war a toj bu ko Macky Sall tojut bés bu see mille vingt 2024 bu ñu jëlee réew mi danañu ko toj loolu la privilégié yi ñu jàpp nag di leen neexale suufu Sénégal lañu war a arrêté te loolu yéen waa Sénégal il faut ngeen xam ko il faut ngeen xam ko oui il faut ngeen xam ne suuf si bu dee sëriñ lañ ko jox bu dee ab général lañ ko jox bu dee ab magistrat lañ ko jox bu dee ab ministre lañ ko jox wala DG koo mën a doon dañ koo war a saytu bu fekkee amoo ko légalement ñu nangu ko su fekkee da nga faa tabax ñu toj ko littoralu Sénégal gën waru koo jël di ko paacoo xeex boobu xeexu sénégalais yépp la ndax alali Sénégal la xeex boobu xeexu Sénégal yépp la mais foncier bi nañ ko seet depuis jamono Ablaye Wade peut-être jamono Abdou Diouf dina compliqué mais nañu saytu depuis jamono Ablaye Wade jusqu'à aujourd'hui les vingt dernières années de 2000 à 2020 nañu seet suuf si pasar pasaree nañu suuf si te ñëpp a ci jariñu nag ñëpp ñii wax ñii accusé ak ñii contre accusé ñoom ñëpp kenn ku ci nekk jariñ nga ñu jariñu nga ci suufu Sénégal si ñoom ñëpp te suuf soosu nag dañ ko war a seet dañ ko war a seet parce que moomuñu ko dañoo mel ni ñu doyluwul nit ñi dañoo mel ni ñu doyluwul sénégalais yi war a am dara nit ñi di xiif nit ñi di sonn nit ñi di torox ci àll bi àll bi amuñu ndox amuñu courant aw yoon jaaru fa amul poste de santé amul l'école yow nga mën a rangale lu mat vingt kër ñii dañu baadoolo dañoo baadoolo dañoo baadoolo dañoo xiif dañoo baadoolo pour lan ñuy saax-saaxee suufu si réew mi comme ça pour lan ñuy saax-saaxee koom-koomu réew mi pour lan li nit ñi war a am benn groupe rek nekk ci kaw tiim ñu di ko jariñoo di ko seeñu di ko paccoo ñun ñuy dee pour lan pour lan ñu war a seetaan loolu ñun jeunesse su Sénégal pourquoi ñu war a seetaan ay ministre wala ay sëriñ wala ay général wala ay ay ay yu kenn xamut directeur ak ñu kenn xamut waa ah, wala ay lobbyman di di pasar pasare suñu suuf si gis mu am dix terrain ñi cinq terrain ñii trois terrain di ko jaay ay milliards di ko lekk te boo demee ci àll bi ba tey amuñu courant c'est malheureux ce qui se passe dans ce pays te kenn waxu ko c'est malheureux ce qui se passe dans ce pays te kenn waxu ko la moo tax nit ñi di noppi la moo tax jeunes yi di noppi la moo tax la moo tax dañoo amul suñu làmmiñ nit ki buñ lay rendi da ngay yuuxu nit ki buñ lay rendi yuuxul du du ñàkk jom du ñàkk jom yuuxul ñu dégg la xam ne ñu ngi lay rendi loolu laay def nii dañoo nekk di rendi Sénégal dañoo nekk di rendi senegal ci suufam dañoo nekk di rendi Sénégal ci entrepreneuriat national bi ñu nekk di liquider dañoo nekk di rendi senegal ci koom-koomu senegal bi ñu jël pasar pasaree ko jox ko ay étranger loolu nag ñëpp laa ciy interpellé man ñëpp ñëpp laa ci interpellé tout le monde Macky Sallo Idrissa Seck Ousmane Sonko Khalifa Sallo Barthélémy Dias ñëpp lañ ci interpellé lañ ci interpellé parce que suufu Sénégal kenn waru koo jël di ko di ko di ko séddoo di ko seeñu wàcc nit ñi loolu mooy lim li ma xam ne moom laa bëggoon a wax di lancer un di wax waa Sénégal du rek littoral bi littoral bi lañ wax nii ñi ko seeñu ñi seeñu littoral bi dañ leen a war a fekk foofu toj littoral bi nangu ko ci ñoom mais ñi nga xam ne ñooy seeñu pàkk yi ci biir ci biir région yi communes yi ñoom it dañ leen war a fekk foofu ñu nangu ko ci ñoom waaw koo ci gis ngay ministre ngay nangam am na cinq kër ke am na cinq kër am na quatre oto am na kër France am na kër nangam mais doyewuñu dara suuf si xam ngeen lu ñuy doye suuf si spéculation pour jaay sawaay daggal ma fee na ñu daggal la benn affaire nga jaay ko un milliard dem blanchir xaalis bi bitim réew tous ay blanchisseur lañ bitim réew la ñuy yóbbu xaalis bi ubbi fay compte bitim réew wala ñu jënd fay appartement wala ñu denc xaalis bi bitim réew ñëw toog toogaat Sénégal yaakaar ne nit ñi xamuñu yaakaar na nit ñi yeewuñu duñ ko yor fii li ngeen il faut ngeen xam ko pàkk yi ñu leen di jox ñooñu ngeen di gis ñu koy tabax am na ñeneen ñoo xam ne ñoom lañ joxoon suuf si ñooño ñoo ko jaay ñii mais ñoo ñee ko jaay jël nañ xaalis bi dem yóbbu ko bitim réew wala ñu jënd ci ay appartement en Europe yaakaar na ñoo gën a yeewu nit ñi nit ñun Europe lañ jógee def nañ fa ñaar fukki presque xam nañ li fi xew lépp suñu africain yi ministres yeeg DG yi dem Europe di jël ñun xam nañ ko te seen bés a ngi ñëw nag seen bés a ngi ñëw loolu laa bëggoon a wax di interpeller ñëpp nag maa ngi interpeller suñu frère Ousmane Sonko leader de Pastef di ko wax ne ko lépp lu am ci suuf si interpellé nañ ko ni mu doon taxawee di défendre pétrole bi di défendre yeneen ñoo ko ci interpellé na taxaw ci suuf si moom it mu wax oui du rek ay affaire littoral bi déedéet il était inspecteur principal des impôts et pendant 15 ans xam na li ci xew lu ci jar a maa ngi woo Ousmane Sonko lu mu ci xam lu ne lu ci jar a dénoncé mais bu mu rek ñëw nekk fee di jouer ak di fo ci géej gi déedéet dénoncer li xew lañu wax lan la qu'est-ce yaa ngi woon ci biir système bi qu'est-ce joxe ci ay information nit ñi am aussi ni nga ko defe ci pétrole bi defe ko ci fer bi defe ko feneen maa ngi koy interpeller du dara nag mais comme nekkoon na ci système bi moo passé entre 2000 ba 2012 bi muy bàyyi xaw ma 2013 loolu maa ngi koy interpeller suñu frère lépp lu si waaye def ci suuf ci loo xam ne jaaduwul ñu ngi ñaan suñu frère Ousmane ko moom mi ci nekkoon mu génneel ñu ko ndax mi ngi ci biir ah bu mu noppi ci loolu bu mu ci noppi de. maa ngi ko koy ñaan nag en tant que chef de parti comme moom maa ngi ko ciy interpellé di ko laaj foofu nga nekkoon lan la ci nit ñi def nañ ko génne ñu yem rek ci littoral bi ñii nañ boole na ca des ñi nekkoon ci wadd Wade bu Ndiaye. ak ñëpp ak ñeneen ñi nekk ci nguuru Macky Sall te sàcc suufu Sénégal ñoom ñëpp li ci Ousmane Sonko xam nañ ko génne ñu boole ko ñoom ñëpp ku sàcc alali réew mi ñu banque la ci koso bi. kooku maa ngi ciy interpellé sama frère Ousmane Sonko parce que moom xam na ci dara bu mu yem rek ci joué déedéet bu mu yem rek ci fecc ak say doom nii na man bii maa ngi nii di fecc ak samay doom déedéet li ma xam ci ak Akilee bi ma xamee ne dañ koy sàcc. di di fi di ko jox ay israélien damaa dem ci tale bi ma wax ko Ousmane sonkoo kon yow bul noppi amuloo droit noppi amuloo droit noppi ci foncier bi xam nga ci lu bari génne ko nga wax ko ñi di def lu luubal ci ci foncier bi maa ngi interpellé Ousmane Sonko na ci wax waaw maa ngi ko ci interpellé na ci wax waaw parce que xam na ci dara kon ñu ngi ko ciy ñaan ku ci ku ci def lu warul ñoo ngi koy ñaan mu génn moom it ni mu daan génne di défendre sénégalais yi mu génn mu wax ci suuf si. c'est extrêmement important parce que dañ ko soxla loolu dañ ko soxla waaw loolu rek laa bëggoon a wax ci wàllum suuf si bëggoon na ñëw nag ci famille Fares.